rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin nabiyyinaa muhammadin al amiin wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin wa da'aa bi da'watihim ilaa yawmi ddiin mbokk yi ñu ngi sant yàlla sunu boroom tabaaraka wa taala di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di del si fii tey comme niñ ko baaxoo defee ñetti weer jot di amal jotaay bu mel nii waxtaan yu mel nii ñi nga am mbégte lool tey nag di dalal sunu cheikh Abu Ibrahim ak docteur Mouhamed Ahmed Lo ci dars boo xam ni war nañ koo defal mu aju ci thème bu am solo muy tarbiyatu shabab wa ahamiyatuha fi lmujtama mooy yar ndaw ñi ci lislaam ak yitte jum am ci xeet wi kon bu ko defee ngir bañ a guddal lool dañ koy jox mu tàmbali waxtaan wi te xam ni ñu ngi war a dem ba secteur heures ci wàllu exposé bi muy gaaral bi bu ko defee li ci des di fanweeri minute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 amma baadu fa salaamu aleykum wa ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci ab di ñaan sunu borom tabaraka wa jataay bi mu boole ko ci jataay yim gërëm boole nu tawfiq ba liñ bëgg a wax mu mën koo ñu jot li ba ñim jaral jóg ñu mën a dégg liñ bëgg a wax ndaxte lee yàlla mën leen cee jariñ ci li nga xam ne nekk na ci ci ay njariñ bunt bi ñuy waxtaanee muy lu aju ci yar gone mbokkum sax shabaab la wax waaye tarbiyatul awlaad la yar ndaw ñi xale yi gën a ndawe yar boo xam ne yarub lislaam la loolu ci la waxtaan wi jëm danañ ko defal njiitlaay su njiitlaay li jàllee rek li ci def lépp par ay tomb lañ ko def yoo xam ne xaw naa bari waaye benn bu ci nekk dañ ciy taxaw taxaw bu gàtt rek jàll ndax mu doon tomb yoo xam ne képp ku ci xalaat da nga yëg ne tomb yooyu aajowoo nañ ko ngir gone yi ñi mën leen a jubbanti ba mën leen a teg ci aw yoon wépp xeet woo xam ne mas na fay jaar dund fi ab civilisation ba jàll xamal ne wàllu yar joxoon nañ ko yitte suñ waxee wàllu yar nag mooy nañ bëgg seenu nit mel na ëllëg nañ bëgg seeni nit mel na bu ëllëgee seet nañ lu mel ne programme ñu di ko teel a jëmbat ci ndaw ñi ngir suñ màggee mel noonu xeet yi fi ma a jaar yépp noonu la seen mbir demee boo demee ci téere yi nga xam ne dañuy nettali sax ci wàllu histoire yi yàgg lool dañuy wax ne waa Grec ñoom nga xam ne ñaari mbir moo leen itteeloon seen projet ci dund gi ñaari mbir la woon benn bi mooy lu aju ci wàllu kaaraange beneen bi ci des mooy lu aju ci wàllu xel ak xalaat ak bind dañ doon wax ne ab liir bu juddoo dañ koy bàyyi ñetti fan duñ ko nàmpal duñ ko jox mu lekk duñ ko sang duñ ko def dara su amee ñetti fan te faatuwut ñu xam ne kii nar naa am doole ñu jël ko pare préparé ko pour mu mën a dem ci armée ba suñ ko contrôlé nag gis ne bu naree am ñetti fan nar naa faatu ñu daal koy xettali balaa faatu xam ne kii kattanam nar sa bari lool lool kon ñu ne nañ ko daal di jëmale ci wàllu xel su ko defee yim koo jàngal ñoom la ñuy tuddee xikma muy falsafa si seen jamono fexe ba mu nekk ab philosophe bu màggee loolu daf lay jox benn misaal rek ci xeet yi wu nekk itte ji nga xam ne daanañ ko ittewoo ci jéem a yar seeni gone ngir ñu mën a doon bu ëllëgee la ñuy doon boo dikkee ci sunu histoire réew danga nga gis ne ni nga xam ne noonu lañ séddale woon société bi askanu Sénégal ñii doon lii ñii doon lee ñee doon lee boo dikkee xool leen da nga gis ñi nga xam ne dañoo bëggoon seeni doom doon ay buur bu ëllëgee ñu juddoo ci kër buur dañ leen di yar yar yin woo xam ne dañ leen di préparé bu ëllëgee ndax seen i baay bu ñu faatoo ñu mën a doon buur ñoom itam toog place am daggee itam mu ña nekk ca gannaaw buur kenn ku nekk am na luñ la féetali woon loo xam ne say doom dañ lay jéem a yar ca loolu ngir bu ëllëgee nga màgg mën a doon la nga xam ne moom la sa baay doonoon loolu ci la demee dem ba sunu société boo xoolee da ngay gis ni yëf yi séparé woo ca la weesu nag nga léegi lu ci bari mi ngi soppiku dangay ngay gis ki nga xam ne dañ ne rek uude la maanaam day ëw ab famille la ñu doon boo xam ne ñoom ñëpp dañuy ëw lu koy waral mooy ki nga xam ne dafa xas ba yor métier boobu doom jum yorati loolu la koy jàngal bu ñu ne ab géwél la day daal di yor programme la muy def ay doomam mu di leen ci former di leen ci jàngal ñu yem ca loolu ñu séddale askan wi noonu ñenn ñu nekk eh, mu bokk ci njuumte yi ñu kenn ku ci ne lañ la yemloo nga yem ci ñu jël yeneen i famille yoo xam ne dañ ne ñii seen wàll mooy jàng ñu dajale leen fi béréb ñoom itam bu buñ juddoo ñu daal tàmbali di leen jàngal buñ juddoo daal di doon ñu ñuy tudde borom xam-xam yi su fekkee ne ay borom xam-xam nga fa <coughs> kon tomb bi mooy loolu moo di askan wu mën a doon wu ne xalaatiin wañ yor ak yéene jañ am ci seenu askan bëgg ñu doon nangam bu ëllëgee loola ci lañ leen di yar lislaam nag dafa di xeet woo xam ne xeet bu màgg la xeet wi gën a màgg ci xeet yi mooy xeetu lislaam ndax kuréel yu sew sewaan yeeg xalaat yi ni ndaw ndawaan yeeg nit ñu bokkul ñeeg bokkuñuy làmmiñ bokkuñu ay dar bokkuñu ay juddu ñooñu ñëpp bi lislaam dikkee bi lislaam dikkee daf leen a boole ñoom ñëpp dugal leen ci benn béréb boo xam ne moo gën a yaatu foofu mu leen dugal muy diine sunu borom tabaraka wa taala war leen a jox couleur boo xam ne beneen couleur la bu bokkut ak yi sew xewaan yañ gëmoon mu doon leen tàqale fexe bañ doon benn ñoom ñëpp kon la chaque année bu fekkee yéene jooju moom la lislaam am ci aw askanam kon programme ba mu leen di dëdal tëral dana doon programme boo xam ne moo gën a yaatu ci mbooleem programme yi nga xam ne def na ko tëdd moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy yarekat bu mag bi mooy yarekat bu mag bi ci lislaam Ah, ndaw ñi de joxoon na leen itte joo xam ne itte ju jéggi dayo la ci wàllu yar leen ak itte woo leen te yaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndaw yi jullit ñi yemul woon sax ci ñi nga xam ne da naan kii doomam la wala ab sëtam la waaye mboolem doomi jullit ñi ni mu itte woo woon yar mag ñi ba ñu mën a tegu ci siraatul mustaqim noonu la itte woo woon kenn ku nekk ci sa doom ak sa njaboot lay xew ca kër ga mu di ko xam di leen yëgal ne boo leen di yar ci nii ngay def nii ngay def di leen teg ci aw yoon bañ mën koo xam <coughs> loolu nag li ko waral mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ko wutalee mboolem nit ñi moo di dafa dikkul rek ci ak neen waaye dafa ñëw ngir yor lu muy dund loo xam ne daf ko war a jàngale yar ci nit ñi won leen ko muy bépp kuréel bu mën a doon ci société bi war naa am nu muy jëflanteeg yow ngay mag wala ngay ndaw wala ngay góor wala ngay jigéen li ko waral mooy bu ëllëgee nit ñi mën ko ci roy moom borom bi tabaraka wa taala dafay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju allah wal yawmal axir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen royukaay royukaay boobu nag bu ko waxee ci lépp la moo tax kon même ci yarinam dañoo war a jàng ba xam moom nan la doon yare ndaw ñi nan la doon yare mag ñi itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ittewoom ci nit ki doon ku baax ci yar ko jiitu na ba muy juddu jiitu na ab juddoom moo tax daf daan soññee ci nit ki balaa juddu ba ñuy ittewoo naan nañ ko yar ak nañ ko jubbanteeg nañ def nii fekk tànnaloon nañ ko tànnaloon nañ ko ay waajur bu ñu tànnaloon nañ ko ay waajur mooy tànnaloon nañ ko ndey ak baay wax na góor ñi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne taxayaru li nutafikum fa ankixu al atfa wankixu ilayhim xadis boobu xadis bu wér la Cheikh Nasiruddin al Albani rahimahullah wéral na ko ci silsila saxiixa mu ne na ngeen tànn ñi ngeen di féyal na ngeen tànn ñi ngeen di féyal moo xam ay góor ngeen wala ay jigéen ngeen loolu mooy gàttal maanaam xadis bi waxoon itam ne jigéen ji ñeenti yëf mooy tax nit ñi di ko di ko denc am na ñoo xam ne alalam mooy tax ñu denc ko am na ñoo xam ne askanam mooy tax ñu tànn seen jabar am na ñoo xam ne taar ba mooy tax ñuy tànn soxna am ñoo xam ne diineem mooy tax ñu tànn seen soxna bi mu waxee loolu ba àggal mu ne fadfar bi zaati diin taribat yadaak kon yow mi jóg bëgg lu baax nee na tànnal boroom diine tànnal boroom diine yëmut rek ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubbanti góor ñi orienté leen ci nu ñuy tànne soxna waaye même jigéen ñi daf leen a wax nan la ñuy tànne borom kër bi nga xam ne su ñëwee des koo war a nangu mu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne am na ku ñëw di labat jigéen te fekk ni kii seet ngeen ko gis ne diineem baax na jikkoom baax na nee na kooku may leen ko soxna su ngeen ko deful loolu fit na lay indi ci suuf si ak yàq gu bari kon day indi fitna ak yàq ñu ne fa waaw yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa ida kaana fiihi am loolu ak junj la ci ne su fekkee askanam xaw naa suufe wala xaw naa mel ne neen mu delluwaat ne leen su fekkee ne ki ñëw gërëm loo ngeen diineem ak jikkoom may leen ko soxna wax ko ba mu ñetti yoon kon nga xam ne amut leneen lu muy xool ida kaana fiihi moo xam dafa ñàkk moo xam dafa amul aw askan moo xam dafa amul sax alal ju bari waaye am na lu mu dunde loolu doy na ginnaaw diine jaag jikko jaa nga fa daal may leen ko soxna moo tax borom bi tabaraka wa taala moo jëkk wax ne wala abdun muminun xayrun min mushrikin walaw ajabakum ki nga xam ne dafa doon ab jaam buñ moom waaye fekk ku gëm yàlla la borom bi tabaraka wa wax na ci alquran ne moo gën ki nga xam ne yéem na la lool ci wàllu taaram ak wàllu am amam ak ak wàllu juddoom sax waaye fekk bokkaalekat la maanaam amul diine amul diine ki nga xam ne am na diine daal su xasee ñëw moo gën ki amul diine kon noonu la alquran jàngale ci wàllu tànn soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la jàngale moom itam ku góor ki ak ku jigéen ci noonu lañ koy tànne su fekkee dem nañ ba tànn gi am na def nañ seen i fexe ba tànn ba jëkkër ak jabar daal nay am borom bi tabaraka wa taala mi ngi leen di bàyyiloo xel ñaan ñaan borom bi tabaraka wa taala defal leen tawfiq ci njaboot gu baax rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama ñaan bu màgg a màgg la boo xam ne nit ki takk soxnaam ba àggal ak jullit bi dund ci kaw suuf sax war na koy ñaan ndax ñaan la goo xam ne làmboo naa yow sunu borom tabaraka wa taala yàlla nag nu may loolu ñaan ngi wax yàlla nag nu may ci suñuy soxna bu dee jigéen de moo koy wax kon ci sunuy jëkkër ak suñuy doom ak suñuy sët ñoo xam ne danañ sedd xol danañ sedd xol ndaw loo xam ne dana sedd xol kooku mooy ndaw lu jub ndaw lu jaar siraatul mustaqim ku ko gis ne ak a neexoon kii doon sama doom kooku mooy ku sedd xol waaye nag koo xam ne ku ne ku jur kii buñ ne diwa ñu ne diw war ta mën a jur kii wala kuñ ko askan nga ne ak a neexoon mu faatu kooku doonul doom joo xam ne ju sedd xol la kon bi muy ñaan doom joo xam ne ju sedd xol la mooy koo xam ne ku baax la mu teg ci ne wajal naa lil muttaqina imaama nga def nu ay njiit ci ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ba tey lislaam continué ànd ak moom ñaan googu topp ko ba ca bërëb ya gën a xat mooy fa mu demee sax ba dara desul lu dul sëy soxnaam lislaam daf ko jàngal ñaan goo xam ne lépp boo ko seetloo pour doom ji baax ko tax a jóg mooy su demee ba dara desul lu dul sëy soxnaam wala ku jigéen ci sëy borom këram la ci jiitu mooy bismillah kon tudd tudd sunu borom tabaraka wa taala nga yëg ni kon li ngay def lu baax la mu teg ci ne allahuma jannib na cheytaan yàlla yàlla na nga dox sunu diggante ak cheytaane wa jannibi shaytaana ma razaqtana te su fekkee ne sëy bii nuy bëgg a sëy doom juddoo na ci wala doom sosoo na ci yàlla na nga dox digganteem ak seytaane seytaane ku mucc ci moom ku nekk rek baax nga ku mucc ci seytaane ku ne baax nga kon jamono yi nga xam ne doom ji juddoogul bañ ko tànnalee ñaari waajur yu baax ba àggal ñaari waajur yu baax ya lañuy jëkk a def mooy di ko préparé moom di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala musal ko ci seytaane te def ko mu nekk ku baax ba su juddoo seytaane du ko mën a yàqal xadis boobu mi ngi ci buxaari ak muslim muy ñaan boobu loolu nag da dafa bokk ci buntub jàpp ci li ñu tuddee al asbaab mooy leen lu nekk dafa am yoon wu muy jaare woo xam ne su ko ci nit ki jaaree mbir ma mën naa am yaakaar su ko teggee mbir ma mën naa ñàkk yaakaar moo tax lislaam itteem ci ndaw itteem ci ndaw jiitu na kon ndaw di judd judd ba tey mi ngi continuer ànd ak moom suñ demee ba yëg ne ndaw si ab ëmb ngi ci biiram lislaam ittewoo gum ittewoo dund ndaw soosu ak dund xale bi nga xam ne moo nar a tax na am na ay mbir yu bare bari yoo xam ne daf koo joxe ngir ñu sàmm loolu nekk ci biirum ndaw li ittewoo ko ittewoo gum mag a mag ngir mu mën a mucc ngir wér gi yaram mën a baax dem ba àgg sax ci farata yi nga xam ne farata yuñ tegoon nit ki la lislaam ne ko man nga ko bàyyi ba ca kanam lu mel ne koor nga xam ne su nareeru lor doom ji dañ koy wax ne ko bul woor arrêteel sa koor ba yeneen jëmmi jamono dem na ba yëg ne sax bu nam bu wooree ki juddu ba noppi nàmpal gi mu koy nàmpal mën na koo sonal ñu ne ko kon bul woor ànd ak ne koor ponk la bu bokk ci ponk lislaam yi ñu ne ko arrêtel koor gi pour sàmm xale bi sàmm wér-gi-yaramam sàmm dundam ah ba mu nekkee ak toq ndox gu nekk ci biir ba ba keru muy juddu bay nàmp càmm gu mel noonu kaaraange gu mel noonu la ko borom bi tabaraka wa taala di aare ba jaral ko bàyyi ponk boo xam ne ci ponk lislaam yi la bokk bokkoon ngir sàmmonteeg wér-gi-yaramu xale bi gannaaw boo xamee ne xale bi xas na judd nag kon càmm googu la def ndax daf cee am xeeti càmmiin yoo xam ne dañ koy digal nit ki pour mu di ko def nga xam ne buñ ko ko digalut mën na koo fàtte waaye nag am na ci yoo xam ne dañ koo def ci xolu nit ki moom nga xam ne noonu dong la mën a def xale bi juddu am na xeeti mbëggeel yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala def na ko ci xolu ay waajuram yoo xam ne moom dañ koy sàmm ala kulli ak lu mën a xew danañ ko sàmmal wér-gi-yaramam danañ ko sàmmal setam danañ ko jox muy lekk loolu sañuñu ko bañ seeni xol lañ ko def ñu jeng jëm ci ñoom bëgg ko safaan bi sax maanaam borom bi tabaraka wa taala sax yemalew ko ci ñaari waajur ñi waaye même ñi doon ci moom ay jàmbur xale bu tuuti lool bu ñu ko gisee dañ koy bëgg borom bi tabaraka wa taala moo jël loolu def ko ci xol yi ndax kët koo xam ne su fekkoon ne dañ ko faa bàyyi mënalul boppam dara bu ñu ko bàyyi woon ñaari fan képp teg ko fi béréb defuñu ko dara mën ngaa ñëw di ko fekk lu koy dal dal ko kooku su fekkee ne borom bi tabaraka wa taala deful ci xol yi luy tax ñëpp jàng jëm ci moom bëgg ko kon kooku mën naa gaaw a lor lool ndax mënta défendre boppam ci lenn du ci wax du ci jëf waaye nag noonu la ma sun borom tabaraka wa taala tëdde mooy fexe na ba ñëpp danañ ko bëgg danañ ko sàmm rawatina ñaari waa juram sa law bu dara taxawoon bëgg koo lor jaral na leen ñoom ñu faatu waaye doo agsi ci moom kon loolu moom doonut luñ lay digal naan la bëggal sa doom ci képp nit koo xam ne ku mucc la ànd akum xelam te dara dalu ko dana bëgg doomam dana ko sàmm mu des nag yeneen yoo xam ne moom su fekkee ne digaluñ la ko mën nga koo fàtte lu mel ne eh, xale bi teel a jëmbat gi ñuy teel a jëmbat ci moom lu baax ak tawxid xam nga lu mel ne xale bi juddu ñu digle ne nañ nodd nodd ci nopp bi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jooju nga xam ne mooy ñaari seede yi dugal nit ci lislaam ñu def ko ci nopp ndeyjooru ki juddu kooku am na xikma boo xam ne bu ama am solo la bu am njariñ la boo xam ne eh, li muy joxe day wane ne kii nañ ko teel a xamal tawxiit day wone ni kii jaamu yàlla la boo xam ne dañ koo préparé ngir bu ëllëgee mu doon loo xam ne luy jariñu askan wi la bu fekkee nag dañoo bëgg a dikk ba tey ci biir laltaay ji rek ci importance waxtaane lu jëm ci wàllu yar ci wàllu yar jàpp naa ne mooy bunt bi nga xam ne mooy bi gën a rëy tey ci jamono ndax jafe-jafe yi nga xam ne waa àdduna ñu ngi koy dund di jànkonteeg moom tey ci xale yu ndaw yi ak xale yi nga xam ne màgg nañ ba noppi te yar bi ñu bëgg ci ñoom nekkul ci ñoom ni ñuy indi ci société bi ci ay jafe-jafe tax na képp koo xam ne am nga it ci wàllu askan wi baax baax ci seen njub ci seen wàllu jikko baax ci seen digganteeg diine baax ci seen digganteeg seenu askan sax baax ci nangoo liggéey baax ci nangoo développé dëkk bi xeet yu mel noonu yépp képp koo xam ne yor nga benn xalaat ci noonu lan la ñuy def ba loolu am toll nga ci jamono joo xam ne jaaxle nga ngir dëngate goo xam ne lu gare bare bare bari ci xale yi ñàkk yar tax na dëngate googu nekk ci ñoom ba tax na ñu ko màggaale jubadi ba ku ci bi moo xam jàng nga moo xam jàngoo dëng te yaatu na lool kon lu mel noonu su amee war nañoo dellusiwaat xalaataat lan mooy valeur yi nga xam ne war nañ ko bàyyi xel yaraat ci ndaw ñi ngir bu ëllëgee saafara mën a am ci li nga xam ne moom la askan wi di dund bis nekk tey suñ del si di laaj dañuy wax ne lan mooy sababus ñàkk yarute gi am bis nekk tey lu ko indi ndax nit ñi ci seen jëmmi bopp ñoom dañoo yarootul mag ñi ndax dañoo yarootul ba mën a yare ndax kat kuy yare day fekk nga yaru ba noppi walla ndax dañoo démissionné far ne mënunu jéem nan tële nan bàyyi nan mënatunoo yar xale yi comme ni ko ñenn ñi waxe tey ne rek njaboot gi léegi njabootu kanaara la njabootu kanaara bokkul ak njabootu ganaar ganaar buy dox bu mag gi mooy jiitu yu ndaw yi topp ci waaye kanaara yu ndaw yi ñooy dox gu mag gi topp ci ñoom ñu ne léegi njaboot gi daal léegi njabootu kanaara la rek kanaara doom yi mooy jiitu mu topp ci kon xale yi ñooy jiitu ñooy xalaat ñooy womat kër gi ñooy womat mag ñi sax loolu démissionné la boo xoolee bayliku googu nga xam ne am na ci lu bari ci mag ñi ni nga koy mën a firee mooy ñàkk am yëg-yëgu ne lii sa war féef la rek la tële amut waaye ñàkk yëg lii dafa laa war loolu mooy waral nit ki bàyyi njaboot gi bañ iti ittiiti ñoom benn itti bu rëy bi benn itti ju yaatu dem ba defe ne dalaa waru ndax kat ki nga xam ne dafa gëm ne nanga ma ko war dana ci def effort boo xam ne faawu mu jariñ da nga gis koo xam ne day xëy yendu ci classe boo xam ne fanweeri nit a nga wala lu ko ëpp ay gone ñoom ñëpp mu réglé leen teg leen ci benn place di leen jàngal di leen jubbanti ba wàcc jot ñu wàcc ñibbi kooku bu ñëwee ñetti doom wala ñeent wala juróomi doom yi ca këram mu ne mën a lu ma leen dara déedéet daf leen a joxut itte ju toll ne jim joxoon classe bi ginnaaw bi dafa signé accord boo xam ne daa gëm ne dafa war a jàngale loolu moo tax mu mën a jël fanweer dajale leen ci benn béréb di leen yar di leen jubbanti waaye nag ginnaaw kër gi amul jàpp na ne amul accord bu mu signé amul itte ju muy jo xale yi ci kër gi loolu moo tax mën na leen bàyyi ñu saawaan mën na leen bàyyi ñu def lu nekk te bu duggee ci classe bi réglé leen ñu ne teg taxaw di ko déglu parce que am na lu mu def ci ñoom kon foofu càggante bu mag a ngi fi boo xam ne ci kanam euh, mag ñi seenu dellu gannaaw ak ñàkk a yéeg sa responsabilité moo ko waral danañ aajowoo lool yar bi su fekkee ne bëgg nañoo roy yonente bi sallallahu alayhi wa kon kooku danoon woon importance am danañ su fekkee xool nañ li xeet wi dund comme ni ma ko waxee léegi danañ ko aajowoo itam ci su fekkee xam nañ ne yar gone gi kaaraange la ci moom goo xam ne mën na koo aar ci lépp lu koy yàqal ci kanam moo xam wàllu xalaat la moo xam ci wàllu wér-gi-yaramam la sax moo xam ci wàllu diineem la moo xam ci wàllu dundiinam la sax yar gi danañ ci jariñoo ne ba tey kaaraange la ci gone gi jàngal ko muñ ak jàngal ko su màggee bépp jafe-jafe boo xam ne dana ko gaar ci doxiinam dana xam fan lay jaar ba saafara ko su fekkee lu mu mënta saafaral dana xam fan lay jaar ba yan yee ca tegu fan lay jaar ba yanu ko maanaam lu mu diis diis parce que yaroon nañ ko préparé woon nañ ko pour mën a yanu lu diis yar boobu dana jubbanti ndaw li ba tax mu yëg ne moom kenn la ci biir société bi boo xam ne li war ñëpp daf ko war du màgg mukk yëg ne daa war a doon koo xam ne dañ koy taw ñépp di liggéey moom mu toog du liggéey parce que buñ liggéeyee danañ ko ci indil moo xam nag ci tur wuñ ko ci indile wu mën a doon yar bi lislaam bëgg ci nit ki dafa war a yëg ne moom ci jëmmi boppam day produire comme ñépp day liggéey di génn di yëngu waaye wartu doon koo xam ne day jàpp ne ah man euh, dañ may tawwu bu ëllëgee moo xam day tàllal loxoom di yalwaan moo xam day tàllal loxoom di laaj moo xam day toog ñi dem di jël di ko indil kooku yar lislaam bëgg du noonu dañoo bëgg ñëpp yëngu ñëpp liggéey te yar bi lislaam bëgg su demee ba am danañ fexe ba su ñuy liggéey lu ñu am lu mu tuuti tuuti duñ ko yàq itam danañ ko teg ci yoon wi nga xam ne moo ko tax a jóg kon ay nit ñi jub ci wàllu xel ay nit ñi jub ci wàllu xalaat la ñuy doon waaye ñu jub ci wàllu liggéey la ñuy doon ñu jub lañuy doon it ci wàllu ñoŋal su fekkee ne liggéey nañ ba dara dugg ci seen i loxo leen lu ci nekk fu mu war a dugg lañ koy dugg waaye duñ ko yàq ku xool da gis ne li tasaaroo ci ndaw ñi tey muy dañ daan wax ne ni ma ko waxee woon bi may tàmbali muy askan wu ne am na projet ci dund gi boo xam ne ca la bëgg a dox jëm léegi-léegi da ngay dem ba tiit boo dee xalaat ndax askan wi ci seen jëmmi bopp amati nañ programme bu rëy boobu ne ci kanam nga xam ne moom lañ bëgg ndax booy xool da nga gis ne ndaw ñi lu bare bari ci seeni valeur ñu ngi koy ñu ngi koy ñàkk te yëguñu ko buñ demee ba lépp jaxasoo nga xam ne lañuy ñuy tudde mondialisation ñëw na jaxase lépp ndax fekku fa ndaw ñuñ yar ba ngi nekk ci ñoom ba dara mënta leen a soppi ñu dikk ba lépp jaxasoo valeur amatoo ko ba sax tëni ba nga daan sol ñi la koy xamee yow diw sangam sax far léegi tëni boobu amatoo ko dem nañ ba gone yi li ñuy sol kenn xamut lu mu doon dem nañ ba gone yu góor yi ak yu jigéen yi sax far kenn xameetu leen gone bu góor ga yi jigéen lay sol léeg-léeg léeg-léeg mu àgg ci létt boppam léegi léeg mu àgg ci takk ay jaaruy nopp waxuma nag takk ay ceen ci baat ak ay lami loxoom yooyu moom dama ko jëlal ñëw xool ku jigéen ki gis ko mu sol yoo xam ne bu génnee dangay ngay defe ne kee gone gu góor guy dem la kon jaxase googu nga xam dem na ba ni mu jaxasee li ngay gis ci yi noonu la jaxasee itam xalaat yi ndax man cee gis ñoo xam ne ñi ngi dund tool bokk ci génération boobu di dund nga mën a wax ak ñoom ci aw làkk sax làkk yi nga xam ne moom la nit ñi xam fii moo xam làkku tubaab la moo xam làkku national la nga man cee wax ak moom mu comprendre bu baax xam li nga wax rek dafa jafe dafa mel ne li leen nasaxal ba nasaxal li ñuy sol dafa nasaxalaale seeni xel yeneen système yi waxin lañu yor yoo xam ne bokkut ak yi askan wi wax yi waxee ndax ne boo yoroon sa fulla ba di ko waxit da nga wax a wax ba àggal duñ xam li nga wax yeneen la ñuy wax ay ay ay terme yoo xam ne suñ ko waxee yow pour nga xam li mu wax faaw nga laajaat ko ko ne ko luy loolu kon day mel ne la leen xeex daf leen a jël dugal leen ci ab roq roq boo xam ne fexe na ba mu ngi leen di soppi ci seen i jikko ak seen melokaan waaye fexe na ba mi ngi leen di lëm mooy aar leen protéger leen ba sax ku ñëwoon bëgg leen a jubbanti far duñ jéggoog yow far ci ay wax jox leen benn langage seen bopp boo xam ne ñoom dong ci seen kuréel ñoo mën a waxante ñoo mën a comprendre te boo dikkee di làkk français yu baax xamuñu li ngay wax boo dikkee wax ak ñoom wolof yu baax wala pulaar yu baax xeetu làkk wu baax wu tegu ci yoon wu nekk li ñuy wax doo ko xam kon loolu li muy firi mooy nit ki war na cee tiit mooy ñooñu fan lañ leen di jaar bu fekkee leneen la ñuy làkk lu bokkut ak li ñuy làkk noonu ah dégganteetu nag ñoom te ñu ci bari sax xalaat bi ñu yor mooy boo dikkee di wax wax joo xam ne ju normal la ju tegu ci yoon day wane ne loolu yow boo tuut ku tardé nga maanaam déggoo déggoo li nga xam ne fi la yëf yi toll loolu am na nu ñu koy waxee kii branché wu wut walla ak si ak seegul su ko defee mbira ngi foofu moo xam ne day yëgal nit ki mu am yittaange boo xam ne day jóg yëg ne tarbiya war nañ koo delloosiwaat muy wàllu yar yar nag ci lislaam moom lan gëm ne moom dong mooy yar bi nga xam ne moo mën a saafara yooyu yëpp yarub lislaam moom dong moo mën a delloosiwaat nit ñi teg leen ci siraatul mustaqim fexe ba def leen xeet woo xam ne xeet wu am jom lañ xeet wu tekki dara lañ xeet wu am ak njub ci kaw suuf lañ am ngërëmul suñ borom tabaraka wa taala am njariñu adduna itam mën a jariñu mën a jariñe kon loolu mooy objectif u yar ci lislaam yar ci lislaam an yasaa alwalidu fi jalbi ma yanfau al awlaad wa dafci ma yadurruhum aajilan wa aajila mooy kay yar na jéem a def lu ne lu mu man lu ne ngir ñi muy yar mu mën leen a indil njariñ dàqal leen lor tey ak ëllëg kooku mooy objectif yar hadaf bi mooy loolu su fekkee ne loolu am na rek yar bi mel na ni mu war a mel su amul nag lu ci manqué lu nekk rek xamal ne yar bi jàdd na lu toll noonu kon kooku laaj na góorgóorlu bu baax a baax nit ñi ñuy dem ba mu yàgg buñ taxawee di laaj seen bopp surtout kuy jàng histoire l'islam ak jàmbaar yi nekk ci l'islam jàmbaar yi nekk ci l'islam boo leen di jàng di jàng seen histoire seen dund da dem ba mu yàgg ngay laaj lu tax jigéen ñi mënatuñoo jur ñu mel nii ndax jëmmi doomu aadama ci boppam daa soppi ku nekk keneen ku bokkut ak lam doonoon bu jëkk waaye fekk na déedéet nit ñi nit ñi rek la ba tey waaye ña yar ñoo ñee ngay yéem naan lu tax jigéen ñi mënatuñoo jur ku mel ne diw ña leen yar boo delloo ci seen doxin da ngay yëg ne dañoo amoon yëg-yëgu xam lan lañ bëgg ci gone bi ëllëg lan lañ bëgg mu doon ko dañoo yoroon projet ci seenu dund boo xam ne dañoo gëm ne ku baax nii lay mel kooka juddu bala moo juddu sax ñi tànnal ko ndey joo xam ne moo war a jur ku mel ne diw dundeeg moom dundiin woo xam ne yéen ñaar ñooñu war ngeen a mën a ànd jur ku mel ne diw diw moomee ñu ëmb ko nga jaar ak moom fi ñuy jaar ak ëmb boo xam ne dañoo bëgg mu mel ne diw mu judd ñu tàmbali yor moom programme boobu di ko dund ba ba muy xëy nekk mu kàllaf màgg door a mën a doon diw kon loolu faw xeet wi bàyyi ko xel yar nag ngir mën a yar nit ki ba mu doon ko sotti laaj na ittewoo ay anam yu bari li ci jëkk mooy ak tarbiya al jasadiya yar ko ci wàllu yaram sàmm wér-gi-yaramam ba mu doon nit koo xam ne ku mucc lay doon ci wàllu wér-gi-yaramam yooyu yëpp danañ ci dellusiwaat bi ci des mooy at tarbiya ruuxiya yar ko ci wàllu diineem ba mu am diine ñetteel ba mooy at tarbiya al aqliya yar ko ci wàllu xelam jàngal ko def ci am xelam lu baax loo xam ne dana ko mën a xam ëllëg mën koo jëriñ ba ca tegu mooy ak tarbiya nafsiya wala psychologie am wala yëg-yëgam ak ni muy xalaateeg ak ni muy jeexitalu ci mbir yi ko wër effet yi ñuy am ci moom ak lu ñëw bu nekk ban réaction la ciy am kooku yar ko ci bam mën a yemale boppam ba doon ku yem loolu ci bërëb yi aajo yar ci la bokk ak tarbiya al ijtimaaiya mu yar ko ci wàllu social ba mu yëg ne kenn la ci biir askan wi boo xam ne dafa war di jële ci nit ñi waaye dafa war di delloo itam ci ñoom di dundandoog ñoom yëg ne doonut koo xam ne ab noon boo xam ne ay noon a ko wër waaye menn mbokk moo xam ne ay bokkam a ko wër la di dund ak ñoom loolu itam fexe ba dundal loolu ci moom ci anam yi ñu war a yare ci la bokk kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ laltaayoo door a dugg ci biir jéego yi nga xam ne nit ki moom la war a def nag ngir mën a yar nit ki ci lislaam yar bi nga xam ne moom la lislaam ittewoo dëgg dëgg dëgg dana ci am yoo xam ne dama ci jaaraat jaar bu gàtt gàtt ndax dafa duggaat ci biir programme bi mu di yar bi kon fi muy tàmbalee waxoon naa ne mooy tànn soxna soo xam ne su baax la ak boroom kër boo xam ne bu baax la ngir ñu mën a yaakaar ne kat ñaar ñu baax war nañu mën a indi ku baax ndax kat ay waajur am nañ jeexit nag ci doom buñ fàtte ne Euh, Mariam mi nga xam ne mooy yaayu Isa alayhim assalaam Mariam bi mu xëyee xëy dikk indi liir ba te ñooña xamaguñ ne lii kaawteef gu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala la maanaam miracle la xamaguñ ko woon lañ ko jëkk a wax mooy yaa Mariam foo jële lii teg ko ca ne ko lam yaku lam yakun ummuki maa kaana abuki imraa sawin wa maa kaanat ummuki baxiya yow Mariam lii noo ko defe sa baay doonul woon ku bon sa yaayit doonul woon ku bew xoolal loolu maa kaana abuki imraa sawin sa baay doonul woon ku bon wa maa kaanat ummuki baxiya sa yaay itam doonul woon ku bon kon yaay ju baax ak baay bu baax suñ dajee dañuy séentu ci ñoom nit ku baax mbon mbon su amee ci diggante ñaar ñu baax loolu am xëtt la maanaam wër sa bari wër sa bari léeg-léeg mu am ndax borom bi tabaraka wa taala mu ko wax yuxrijul xaya min al mayit wa yuxrijul mayit min al xay ku baax dana génne ku bon ku bon dana génne ku baax lu ci nekk dana am waaye li gën a bari mooy ñaar ñu baax ñu suñ dajee ku baax moo war a génne ci ñoom ndax lu baax la ñu jëmbat ci moom te buñ ko ci jëmbatee danañ ko ci yar kon mu tax yar boobu des koo war a teele abul aswad duali muy koo xam ne ci ñi àndoon ak saxaaba yi ci la bokk benn bis dafay wax ak ay doomam mu ne leen qad axsantu ilaykum siraaran wa kibaaran wa qabla an tuuladu góorgóorlu leen ndax defal naa leen lu baax ba ngeen doonee ay ndaw ak bi ngeen màggee ak lu jiitu sax ngeen di juddu ñu ne ko wa kayfa axsanta ilayna qabla an nuulad ñi laaj ko ah waaw suñ papa nan nga nan nga defale lu rafet te fekk juddoogun mu ne ixtartu lakum min al ummahaati man laa tusabbuuna biha mu ne leen tànnal naa leen ndey joo xam ne ndey joo xam ne ku leen bëgg a xas doo leen xase ndey jooju waaw doo toog ba mu yàgg jàkkaarloo xam ne ko xanaa yow yaay doomi diw dong loola daal di doon aw naqar ci moom su waxee wax ba yàgg ñu ne ah kooku de doomi diwa tudd ndey ja su ko defee mu daal di doon aw naqar parce que ndey ja mel na noo xam ne ñëpp xam nañ ne baaxul mu ne ko tànnal naa leen koo xam ne ku leen bëgg a saaga du leen saagaa ci ndey jooju ci keneen la leen di saaga waaye du leen saaga ci ndey jooju kon rafetal na jëme ci ñoom bu jiitu ñuy judd ñaareel ba kon ñaan gi ñaan googu ma junjoon sànq lu am solo la moo di bi war di ñaan gannaaw bu defee effort am ba tànn jabar ju baax borom bi tabaraka wa taala war wërsëgal ko njaboot gu baax mel ne Zakaria yonentu borom bi tabaraka wa taala la boo xam ne demoon na bay mag te amul doom xanaa ki dem bay mag te amagul doom moom bay ñaan doom war nañoo mën a jàpp ne doom ju mu am rek baax na waaye déedéet même foofu yonent yàlla boobu xalaatiwut noonu daf ne rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba la wax yàlla yàlla na nga ma may doom ju baax innaka samiu du'a yàlla na nga ma may doom ju baax feneen mu ne wa inni xiftu almawaaliya min waraa'i wa kaanat imraati aaqira fa hab li min ladunka waliya yarituni min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya mu ne man day dama ragal ne su ma génne àdduna du ma am ku ma doon te sama soxna dafa jaasir maanaam ku dul am doom la mu ne yow sama boroom may ma doom yoo xam ne dana ma mën a donn mën a doom nañu bokk ci càllal ak yaqub waaye bi mu demee bi ci mujjug ñaan nga nga li ci ëpp solo wajaalhu rabbi radiya yàlla def ko mu doon ku am sa ngërëm maanaam ku baax kon yemul ci ñaan doom yi kese waaye dafa ñaan doom joo xam ne ju baax la doom joo xam ne dafa am ngërëmul sun borom tabaraka wa taala tuddoon naa léegi ñaan gi nga xam dafa wax ne rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ñaan sunu borom tabaraka mu may ñu ay soxna ak ay doom yoo xam ne ñu sedd xol la ñuy doon ñu kon gannaaw bu tànn gi amee ñaan gi lu mat a xel la ñetteel bi ci yareenu lislaam bi mu bëgg góor ñi ñi ittewoo noonu yar gi moo di alfarax bi maqdami al awlaadi walxadar min tasaxutihim ki nga xam ne mooy boroom doom yi moo xam ku góor kee wala ku jigéen ki la toog na ba mu yàgg mu yëg ne ëmb am na wala mu yëg ne doom juddu na dafa war a bég ci loolu daf ci war a bég waaye mu bañ koo naqarlu léeg-léeg nit ñi am ci ñoo xam ne dañuy dem ba jàpp ne njaboot gu bari lor lay indi ci ñoom nga xam ne bu xëyoon rek am soxna si ñëw ne ko day toll naa ab diggante kooku tiitaange lay daal di indi ci moom day daal di am naqar day dem ba mujj muy bëgg a dund lu mel ni li waa jaahiliya doon dund muy di am lenn ci ay doom di leen suul doom yu jigéen ñenn ñi di leen suul ndax ragal wërsëg ñeneen ñi di leen suul ngir ragal gàcce ak yu deme noonu loolu ñàkk xam la borom bi tabaraka wa taala moo wax ne nahnu narzuquhum wa iyaakum doom yooyu borom bi tabaraka wa taala nee na man maa leen di wërsëgal nii ma leen di wërsëgale yéen ñi ne ci kaw suuf kon kooku bul am njàqare mukk ci naan bu juddoo amaana du am lu mu lekk yow ginnaaw dangaa juddu judd te am nga loo lekk te lii ngay lekk indaale woo ko fi woon ba ngay juddu te du itam du sa njàmbaar wërsëg bu ñu la defal rek la ndax bépp effort booy def coono booy def bu ne ci wàllu liggéey am na keneen ku koy def ci sa wet taxul mu am li nga am kon kooku du sa njàmbaar borom bi tabaraka wa taala moo la ko wërsëgale kon yëgal ne wërsëg wi ci suñu borom tabaraka wa taala lay doon wërsëg bu mu tax mukk nga ne da wàññi njaboot bu ko sa xel xalaat léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne dañ ne doom yu góor rek liñ bëgg waaye doom yi jigéen yi nangam nangam amuñu soxla kooku ba tey ci ak càddo la bokk ak jaahiliya la ëpp naa xalaat te sax njaboot bu jigéen dafa am yeneen yi njariñ yoo xam ne daf koy jariñ moo xam ay doom lañ moo xam ay sœur lañ yoo xam ne da leen a yore yonent bi sallallahu alayhi gannaaw boo xamee ne alquran wàcc na ci moom borom bi tabaraka wa taala wax ne lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yasha yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau dhukur boo settantalee laay jooju da nga gis ne borom bi tabaraka wa taala góor ak jigéen ci kéemaan yàlla la leen boole mu ne yàlla moo bind asamaan ak suuf te it lu ko soob lay bind mu ne yahabu liman yashaau inaasan nee na mooy may ku ko neex jigéen mooy may ku ko neex jigéen nga xam ne kon da doom ak may la ko def may bu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala kooku jullit bi da cee war a bég nga xool ne bi mu waxee may googu bi muy tudd góor ak jigéen it jigéen la jiital foofu yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau zukur ku ko neex mu may la jigéen ku ko neex mu may la góor kon wayafal jigéen wala doom ji jigéen wala jàpp ni gu góor moo ko ëpp njariñ parce que mooy mën a doon ëllëg mooy mën a liggéey liggéey bu bari mooy mën a def ni nangam nangam yooyu yëpp xeetu ak ceddo la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ibtuliya min hadihi albanat bi cheyin kunna lahu sitran min annar rawahu albuxaari wa muslim képp koo xam ne borom bi tabaraka wa taala wërsëgale na ko doom yi jigéen nee na mu sàmm leen ni mu leen war a sàmmee nee na danañ ko aar ëllëg ci sawara bi xam lu xew jàpp na ne la koy ëpp solo ci lukoy koy jëriñ ëllëg mooy lu koy aar ci waxaat na ne laa yakunu li ahadin salaasa banaatin salaasu banaatin aw salaatu axawaatin aw ibnataani aw uxtaani fa yattaqi allaha fihinna wa illa daxala aljanna nee na képp koo xam ne am na ñetti doom yu jigéen wala ñaari doom yu jigéen ñaari sœur yu jigéen wala ñaari sœur wala ñett waaye nee li ci mën a xew daal njaboot gu jigéen googu sàmm na leen ragal yàlla ci seen mbir nee na borom bi tabaraka wa taala àjjana la koy fay ëllëg kon boo gisee muy soññee noonu ci ñuy ittiwoo njaboot gu jigéen gi mooy ceddoo ya dañoo jàppoon ne njaboot gu jigéen ci boppam la ci nit ci musiba la noonu lañ ko gëmewoon moo taxoon wa ida bushira ahaduhum bil unsa bil unsa walla wajhuhu muswaddan kenn kuñ ci ne doom ji jigéen a ngi nii rek nee na karam nga day daal di wëlbati ku suuf kukk am aw naqar kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu soppi seen déggin woowu ngir ñu yëg ne doom ji jigéen ji yu xaaya la maanaam day fekk nit ki ci sawar a ëllëg kon loolu jullit bi da ko war a soppi dindi ko ci mentalité am mu yëg ne njaboot gi moom néew ga ak bari ga lum ci góorgóorlu lu nekk mën na leen a bu dee wàllu dund beeg wërsëg wi borom bi tabaraka wa ñeenteel ba moo di yar jullit bi jóg fas yéene yar nag góor na dimbali ko boroomam al istiaanatu billahi ala tarbiyatihim borom bi tabaraka wa lépp loo xam ne dimbali na ci ab jaamam dana jàppandi lépp loo xam ne bàyyi na ko jaam bi ci ay loxoom dana daal di ñàkk solo moo tax fu mu toll fu nekk war nañ ñaan suñu borom tabaraka wa taala dimbali ko ci lu muy def lu nekk na lu toll ni yar ak njaboot moo tax waxkat ba day wax ne ida saxa awnu alxaaliqi almara lam yajid asiran min al amali illa muyassara borom bi tabaraka wa taala su fekkee ne wóor na ne dimbali na jaam bi lépp lu jotu woon rek dana woyof dana yomb ci kanamam yal na yàlla yombal lépp loo xam ne lu jafe la te baax ci suñ kanam ba tey ñoo ngi ci biir yëf yoo xam ne kii yar moom la war a def digganteem ak doom jooju bi ca tegu mooy adduaau lil awlaadi wa tajannubu duaai alayhim nay ñaanal doom yi ci boppam moom waajur wi moo xam wu góor la wala wu jigéen la xale yi nga xam ne dafa jóg fas leen yéene yar bëgg ñu jaar ci siraatul mustaqim bu mu fàtte di leen ñaanal su jógee ba def ay ñaani guddeem wala mu julli ba noppi di ñaan wala yu mel noonu na ñaan borom bi tabaraka wa taala jubal jubbanti njabootam teg leen ci siraatul mustaqim nay ñaan loolu te wattandiku nag di leen ñaan yàlla lu bare bare bari ci nit ñi xale yi bu ñu leen lëjalee duutuñu contrôler seen i wax lu nekk mën nañ koo wax su booxut ma la yàlla na leen yàlla alak yàlla na leen yàlla def nii yàlla na musiba kooku baaxul waajur wi na wattandiku ñaan yàlla doomam waaye na koy ñaanal borom bi tabaraka wa taala jubbanti ko su fekkee ne dañoo baax na leen ñaanal yàlla ñu sax ci mbaax googu te dolli ko jëm kanam su fekkee ne dañu daa gis ci ñoom ay dëng-dëng it na ñaan borom bi tabaraka wa taala gindi leen jubbanti leen juróom-benneel ba moo di doom yi fexe ba tudde leen ay tur yoo xam ne yu rafet lañ jox leen ay tur yu rafet tasmiyatuhum bi asmain xasana kooku ci biir yar bi ci la bokk ndax kat jëmmi tur ci boppam dafa am jeexit ci nit ki boo gisee nit ñi nga xam ne dañ leen a tudde tur yu baax suñ demee ba dëng ba dëng li gën a bari da dégg ñu soppi seen tur yu baax yañ yoroon néew na ngay dégg bandi boo xam ne bu siiw la boo xam ne nee nañ dëkk bi yëpp àndandoo nañ kaaraange gi ñu ngi koy wër ñu naan la kooku Muhammad la tudd wala Moustapha di ko waxee noonu amaana moom la tuddoon nag waaye dañuy soppi tur wa jamono yoo xam ne mbon gi dikk na kon nga xam ne jëmmi tur ci boppam ak jikkoy boroom am na luñ jote moo tax ka dem a dem a dem ba mu wóor ko ne moom dëng na dëngin goo xam ne tur ko bàyyam joxoon yëkkatul ci moom daf koy soppi jox boppam leneen léeg-léeg nga dégg koo xam ne sax liggéey ba muy liggéeyee ngir lëndëm gëm lëndëm ngir lëndëm gëm lëndëm day bàyyi fële tur wa xam ne moom lañ ko joxoon jox boppam weneen tur woo xam ne bu kenn xamul tur lu mu doon lay doon boo ko déggee danga naan woowu ban façon tur la waaye bu ñu la waxoon na mu tudd nga yëg ni kii kat nekkati tur jullit la yor kon tànnalal say doom tur yu rafet te góorgóorlu ba tur yu rafet yooyu ñu dund ko ñoom ndax li gën a bari nit ki aw turam daf koy dund moo tax waykat ba day wax ne wa qalla an absarat aynaaka za laqabin illa wa maanaahu law fakkarta fi laqabi néew na nga gis ku yor aw tur wala aw dàkkental di ca dund ànd ak moom lu dul boo settantalee da nga gis ay jeexiti tur woowu nekk ci moom faw tur wi am ci moom effet kon nag boo koy tànnal tànnal ko tur woo xam ne tur bu baax la tur yu baaxul yi mooy yi nga xam ne benn kañ koy tudde ci boppam moo doon ku bon loolu baaxul kenn du ku bon du ko tudde aw tur ku nekkul ci siraatul mustaqim jubul baaxul boo naree yar nit ku baax bul ko jox tur woowu yenn yi mooy tur yoo xam ne mën naa firi loo xam ne lu baaxut la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nit daana dugg ci lislaam ne ko nanga tudd mu ne ko nangam laa tudd mu ne ko ah déet woowu soppi ko woowu soppi ko loolu woowu tur baaxut woowu tur sawara lay firi soppi ko tudde ko weneen daal di koy jox weneen tur bu dee nag ñi nga xam ne ñooy làkkat yi maanaam ñi dul ay arab seeni tur am na ci yoo xam ne am na lu muy firi loo xam ne lu baax la am na ci yoo xam ne it daanaka amut lu muy firi aw tur la noonu rek aada ak cosaan moo ko firi ni mu doon aw tur comme tur yëpp kooku bu ko neexee mën na ko bañ a soppi ndax doonu tur woo xam ne bu bon la am nag tur yoo xam ne dañuy joxe loo xam ne lu baaxut la tur yi bu fekkee day joxe loo xam ne lu baaxut la kooku moom borom da ko war ko war a soppi tudde boppam yeneen tur maanaam ma la doon jox tur yi nga xam ne siiw na fii te euh, ñu bare bari xamuñu ne la muy firi lu baax la tour bu mel ne alpha alpha ñu bari dañoo jàpp rek ne turu aada la noonu cosaan waaye la ñañ koy tudde bu yàggoon ci histoire Sénégal nit ñi bu ñu daan jàng dafa am diplôme yi ñuy am dafa am fu ñuy toll ñu tuddi leen da nga gis kuñ tuddee koo xam ne ñëw na ba nekk kaang kaang buñ ko waxee mooy koo xam ne dem na ba mokkal alxuraan buñ ne fóore la mooy koo xam ne mokkal na alxuraan ba noppi jàng téere yi ñu fi jàng ci wàllu xam-xam ñu ne diw kaang fóore la waaye nag kooku day continuer su continuer jàng nag ba àgg ci li ñu tuddee tafsir nga xam ne tafsir na alquran kooku tafsir diw sàngam lañ koy wax tafsir diw da ngay gis koo xam ne turam dañ naan tafsir diw sàngam kooku li muy firi mooy jàng na téere ba noppi mokkal na alquran wëlbatiku na dem na ci borom xam-xam mu tafsiral ko alquran lu gën a bari tafsirul jalaali lañ naan firee booba suñ ko firee baagal ñu ne kii muy tafsir diw sàngam am nag beneen foo xam ne ka def tafsir su jàngalee lu yàgg nekk xaadi atte lu yàgg yàgg nag ba xam-xam ba sax ñu tudde ko moor moor nag mooy tollook alpha bu dee ci mbokki polaar yi moo taxoon da ngay gis ñu bare bare bari ci ñi nga xam ne boroomi xam-xam lañu woon yu kaw yooyu moor lañ leen daan tudde wala ñu tuddee alpha alpha ci aslu mooy alfahim lañ ko doon tudde mooy ki nga xam ne dem na nag ba amul dégg maanaam sax na ci wàllu xam-xam lu gën a bari nit ñi buñ tuddee nit ki xam nga loolu kenn du juddu tudd ko maanaam ñoo ñu daw ñu juddu tudd ko dañ daan judd yor seeni tur waaye di dem di dem ba àgg foofu day mujj seen diplôme boobu ñu àgg nangu seeni tur nag léegi nga xam ne ku leen di tuddee da nga naan alpha diw sàngam wala tafsir diw sàngam wala moor mujj far ñu naan moor di ca yem wala ñu ne tafsir yem ca wala ñu ne alpha yem ca su ko defee loolu day mel ni tur kooku su demee bañ tuddee ko doom doom jooju bu ñëwee alpha kese lañ koy wax wala ñu wax moor kese wala tafsir kese ko defee su boobaa loolu duñ wax ne aw tur bu baaxut la waaye tur baax la ndax cosaanam la ko taxoon jóg Euh, lu baax la lu baax ko taxoon a jóg donte nag lu baax lu nekk am na lu ko gën nag la chaque ne li gën ci tur yi mooy tur woo xam ne abdu nangam da cee nekk woo xam ne jaamu yàlla lay firi maanaam abdurahman abdullahi abdurahim tur yi nga xam ne mooy turi suñu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne dañ koy askane ci borom bi wane ni kii jaamu yàlla la kooku mooy li gën ci tur mooy abdurahman